mu nekk loo xam ne si au centre ville la jooytu nañ ko ay ati at at tey bu ma doxul woon sama tànk ba yam ci yaakaar naa du ma ku ma ko wax du ma ko gëm maa ko gis ngeen gis bidon yi ngeen gis nii moom la waa kër gi di root di teg seen sareté mbaam te ñu ngi dëkk ci wetu gaaru neew bi mu nekk loo xam ne si ñu ngi koy ñaawlu te jàpp naa ne tey jii ak lépp lu mun a xew askan wi war nañu jug jël def un changement majeur

fii ci quartier Kër Macoda ce ci loolu nag dama jàpp ne lay affaire bi ngeen la coalition Askan avec cette équipe de jeunes engagés avec un programme ambitieux nous sommes nañ pour apporter le vrai changement pour le département de Guinguinéo mais pour également la commune de Guinguinéo voté docteur Ismaïla Diallo voté Tidiane Wade au soir du 23 janvier nous génnee résultats. yi coalition Yewwi Askan Wi taxaw Yewwi Askan Wi complètement jëlé ñu bon ñi nga xam ne chaque année dañuy jël seen budget yi def ci ay adduction de extension de réseau te ba nopi duñu xam fan lañ ko jëmale wala ci fan lañ koy duggal jërë jëf